alhamdulilah zakatul fitri kan la war wala boog ñan la war zakatul fitri pour gàttal ñëpp la war ki woor ak ki wóorut ala kulli al nekk ab ki wóorut da koy génne ki woor da koy génne liir bu ndaw bi nekk ci kër gi door a judd sax tabaarakallaa dañ ko koy génneel ki nga xam ne dafa nekk ci kër gi àndul ak xelam te nga yilif ko ala kulli xal mu nekk sa kilifteef da nga ko koy génneel yow mi nga xam ne yaay kilifa gi yaay waajur wi yaa koy génneel képp koo xam ne yaa koy yilif yaa koy génneel waaye ku ko mën a génneel boppam ci biir njaboot gi nag nga xam ne am na lu ko génnee génneel ko xam day gën ndax moo tax woor waaye yow mi nga xam ne yaa kilifa gi njaboot gi nga xam ne yeggaguñ ci koor mënu ko ñoo ndax seen àdduna yow tabaarakallaahu ñoom it da nga leen koy génneel ki nga xam dafa nekk ci kër gi xelam néewul sax nga yilif ko mu nekk ci sa njaboot ala kulli haal dëgg ko koy génneel kon ñëpp lañ koy génneel képp koo xam ne sa kilifteef rek da nga koy natal mu muur muddum koor tabaarakallahu gén moo tax ñu tuddee ko zakatu ruus azakay bopp yi par bopp la konte compté bopp yi la ñu ñaata bopp nekk ci kër gi ñu ne juróomi bopp la kon bopp bu nekk dañ koy génneel zakatul fitr kon nga yëg ne ñëpp lañ koy génneel macha allah buñ ko génneel nañu góorgóorlu ba teel koo joxe jox ko ñu ko moom incha allah salaamaaleykum wa